Bonjour, euh, cher Ahmed euh, Tidjan euh, Sall. Vous êtes ex-collaborateur à Doucement Sonko, par ailleurs coordonnateur euh, du mouvement intitulé Le Rassemblement des Patriotes euh, du Sénégal. D'abord, monsieur Sall, d'abord, pourquoi vous avez quitté Ousmane Sonko Je vous remercie pour votre invitation. Je salue l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Euh, j'ai quitté le parti PASTEF euh, suite à une divergence politique euh, en concernant la liste unique de l'opposition, à laquelle M. Ousmane Sonko ne voulait pas participer parce qu'il il, n'y trouvait pas son intérêt personnel, parce qu'en 2014, en 2017, pardon, il était un illustre inconnu, parce que le parti PASTEF a été créé en 2014, donc il n'était pas encore connu. Oui. Euh, il n'avait pas intérêt à faire partie de cette liste unique de l'opposition, qui était une demande sociale, une demande du peuple sénégalais, afin que l'opposition puisse avoir la majorité au niveau du Parlement. Et il a mis en avant son intérêt personnel, l'intérêt de son parti. Et moi, je, je pense que faire la politique, c'est d'abord euh, Euh, faire des arbitrages concernant l'intérêt général, concernant l'intérêt du pays. Euh, c'est suite à cette divergence là que moi j'ai claqué la porte. Voilà. Euh, certains pensent que vous êtes euh, manipulé par des, des membres euh, du régime. Est-ce que c'est vrai? Oui, bon, vous savez, c'est de bonne guerre ce qui se dit. Euh, c'est comme ça que hier, je l'ai dit sur un plateau. Je dis, bon, ils sont tellement euh, malins, entre guillemets, de croire qu'une personne peut se lever et créer un mouvement et en solo être seul. Non. Euh, vous verrez bientôt que le Rassemblement des patriotes du Sénégal est composé en majorité d'anciens hauts responsables du parti qui ont quitté le parti. Certains ont quitté il y a deux mois, certains ont quitté il y a six mois, d'autres un peu plus longtemps comme moi. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que vous verrez dans les jours prochains euh, d'autres responsables euh, qui vont euh, tenir euh, des, des, des, des, conférences pour vraiment déplorer la mutation surtout du parti. Ce qui nous intéresse maintenant, euh, ce qu'ils disent sur ce mouvement, ne l'oublie pas, ne nous engage pas. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de démontrer aux yeux des Sénégalais que euh, le parti a fait une mutation qui Euh, ne nous convient pas et que donc vraiment la raison pour laquelle nous avons mis sur pied euh, ce mouvement dissident pour dire non seulement pour dire pour, pour, pour, pour tendre la main à ceux qui passent dans le parti et qui ne se retrouvent plus et qui sont là, qui ne savent plus comment faire, où aller. Et ces gens-là aussi, on leur tend la main parce que aujourd'hui tout le monde sait que la mutation du parti actuel Euh, c'est une mutation vers le parti cher Ahmed Tidjan Sal, vous avez mis en place euh, le Rassemblement des patriotes du Sénégal. Euh, quelles sont vos ambitions avec ce mouvement Vos ambitions politiques, je veux dire. nous allons à la rencontre du peuple sénégalais. Nous avons pour d'implanter ce mouvement Euh, au Sénégal et dans la diaspora, euh, aller à la rencontre des Sénégalais, recueillir des doléances, euh, discuter, parce que quand on fait, comme je dis, quand on fait de la politique, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et moi, je, je, je, ne suis pas de ces acteurs politiques qui sont dans des 4x4, vitres tentées, coupés, du, coupés de, de, de, de leur peuple. Moi, j'aime bien ce contact naturel. avec, euh, avec le peuple, avec les citoyens, et la plupart d'entre nous aussi c'est pareil. Donc nous allons aller vers les populations pour euh, vraiment faire un diagnostic et, aussi pouvoir aussi adapter vraiment les, nos préconisations et, nos idées par rapport à, à la demande. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des, des, manifestations de la coalition Yehu Askanui prévues ce 29 et 30, mais aussi le 3 avril, des manifestations interdites par le euh, préfet de Dakar euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations euh, Surtout euh, ce 30 mars, cela va coïncider avec le procès entre Ousmane Sonko et Mambaignan, le procès en diffamation. Vous savez, j'ai oublié de me présenter à l'entente de l'interview en disant que je suis quand je voudrais juste appeler que je suis un membre du service fonctionnaire en France, parce que je suis par ailleurs le coordinateur de France pour le départ de Paris, de l'opposition, euh, la société civile, des mouvements indépendants, etc. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sénégalais doivent savoir, je pense qu'ils le savent euh, déjà, Euh, il y a des oppositions au Sénégal, parce qu'il y, a plusieurs coalitions. Euh, et aujourd'hui, euh, on peut aujourd'hui indexer une partie de l'opposition qui se retrouve dans l'IAU, qui a choisi le parti de la violence pour comme programme politique et pour s'opposer au régime du président Macky vous avez la coalition Wallou, vous avez la coalition de Fernand Santal, Et, eh, eh, eh, vous avez d'autres hommes politiques qui n'ont pas opté euh, n'ont pas opté euh, choisie par Yewwi Askan de tenir la dragée haute face au Et ils pensent que il faut verser dans la surenchère de la violence il faut vraiment tenir en otage, tenir en otage le peuple sénégalais avec des manifestations tous les jours, des manifestations qui n'ont, qui n'ont plus de sens, parce que on sait plus finalement euh, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Surtout euh, le Pastef et Ousmane Sonko, qui ont qu'un seul rêve, c'est de faire plonger ce pays dans la violence, dans la dans, dans l'instabilité. Euh, je pense qu'il faut qu'ils reviennent à la raison Euh, le pouvoir, ce n'est pas comme ça qu'on va le prendre dans la rue. Le Sénégal est, est pays, euh, qui a une, tradition démocratique et le pouvoir se prend à travers les urnes, mais pas au niveau de la rue. Euh, d'accord. Euh, Monsieur Sall, parlons un peu de la sortie du, du, du procureur. Euh, sa sortie d'hier, le procureur a parlé de commando. Il, a, il s'est prononcé sur la tentative d'assassinat euh, d'Ousmane Sonko. Il a également abordé euh, le fonds COVID-19. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette sortie du, du procureur qui est au cœur de l'actualité? Mais je pense que à travers cette sortie, il y a de quoi avoir peur et ça confirme ce que je vous disais aussi, que le PASTEF a choisi aujourd'hui de verser dans la lutte armée, dans la sédition, euh, dans la rébellion. Et, et, vous savez ce que le procureur a dit, et il ne faut pas oublier ce que, ce que, ce que, ce qu'on savait déjà avec les forces spéciales, euh, la première vague d'arrestation de militants de PASTEF qui projetaient des attentats contre la centrale électrique, euh, contre d'autres cibles de l'État et des personnalités de l'État. Euh, ce, que, ce que le procureur a dit fait peur et je pense que, euh, comme je l'ai répété, comme je voulais, je voulais confirmer, le parti est en train de choisir pour voir vraiment euh, de, de la séduction, de la rébellion, de la lutte armée. il y a de quoi avoir peur, parce que quand un parti politique avec ses militants en arrive là, c'est que vraiment, ils ont échoué. à convaincre les à travers des projets, des programmes, un projet de société. Ils ont échoué euh, parce que pour moi, à choisir la voie la plus facile, c'est-à-dire celle qui consiste à détruire. Tout, le monde que c'est plus facile de détruire que de construire. mais c'est une hérésie qu'un parti politique qui a pour ambition de, procurer des meilleures conditions de vie à ses citoyens se trouve à être, parce que c'est devenu aujourd'hui une terreur pour le peuple sénégalais. Moi, je suis allé récupérer ma à son école. Son sac était tellement bourré, était tellement lourd. Je me dis, mais pourquoi tu as fait ça? On m'a dit, parce qu'il y a des manifestations. Euh, franchement, j'étais meurtri au plus profond de moi-même euh, de voir qu'aujourd'hui, euh, les Sénégalais, dans leur grande majorité, vivent dans la terreur, vivent dans les lendemains incertains avec des manifestations, avec un parti aujourd'hui qui a versé dans la, qui verse dans la violence et qui, qui tient tout un pays en otage. Euh, euh, d'accord. Le, le, euh, vous avez également suivi euh, la sortie d'Ousmane Sonko pour répondre au procureur Bahoum. Ousmane Sonko déclare que euh, le procureur euh, Bahoum est, est, est, choisi par le président Macky Sall pour faire le sale boulot. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse d'Ousmane Sonko par rapport à la sortie du procureur? Pourquoi? que ça fait un moment que je ne le suis plus parce que pour moi, plus, il n'est plus un acteur politique, mais un comédien. Un comédien euh, digne Durand de sa mère ou, euh, ou Pierre Bourra ou que sais-je encore. Euh, donc moi, je perds pas mon temps à suivre un comédien. Moi, je suis un acteur politique. Euh, maintenant, après, dans les réseaux sociaux, il m'arrive de tomber sur le groupe de, de ces interviews et d'écouter euh, très rapidement Et ça n'est pas sérieux, parce que mm. franchement, euh, il est dans la comédie. Mm. Euh, il, dit que le procureur Bahoum est choisi par euh, le président Macky Sall pour faire le, le sale boulot. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration le, lui, voilà. lui, il, le, il, le, dit à chaque fois qu'il a une affaire pendant la justice, il stigmatise le magistrat ou le procureur, ou il qui, qui, euh, affaire. C'est systématique. À chaque fois, le juge, il est, corrompu, le procureur, il est corrompu. Euh, il n'y a personne qui est digne pour lui de s'occuper de ses affaires pendant devant la Donc, c'est connu. C'est connu pour lui, c'est systématique. Donc, il n'y a aucun magistrat qui, qui, qui, qui est qui, est, qui, a une probité morale et intellectuelle, qui a aucun magistrat qui décide vraiment de, s'occuper de ces affaires euh, judiciaires le concernant. Donc, euh, c'est vraiment pathétique comme euh, réaction. Parce que, je, peux, je peux même que dans chaque, chaque corporation, il peut y avoir une série de garages, il faut pas le dire. Mais de là à systématiquement refuser tous les magistrats, tous les juges, vraiment, c'est pathétique et c'est pas. c'est indigne de sa part. Parce que euh, on ne pas tout le temps jeter le pas les gens pour essayer de se soustraire. Je suis qu'il n'y a aucun magistrat capable de, de, rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Mm. Donc, euh, c'est pathétiquement euh, la façon dont que j'ai connue, que j'ai connue, qui était dans des vraiment des réflexions de, de qualité. Et aujourd'hui, je ne sais pas, invitation, je sais pas, c'est peut-être difficile à faire à guitare. Moi, je le reconnais effectivement. Je pense qu'il laisse pas faire euh, euh, d'une maladie euh, qui, fait, qui fait qu'il s'est transformé en un, Et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour sa carrière politique. Et c'est dommage surtout pour les Sénégalais aujourd'hui qui le suivent. une euh, partie de ces, ces Sénégalais sont manipulés et euh, je pense qu'ils se sont trompés de, de, de, de bonne foi et pensant que cet homme est, est, est l'homme qu'il faut et cet homme-là qui, euh, euh qui, qui, est capable de, faire quelque chose pour le Sénégal. Euh, mais je ne pense pas que euh, cet homme-là soit capable de faire quelque chose de bien pour notre pays. parce qu'il l'a démontré à travers ses actes déjà, parce que quand un homme politique il veut brûler son pays, il pense en fait à installer le chaos, la violence, cet homme-là a échoué. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment de, de Ousmane. Donc, c'est son échec dans son parcours politique. Euh, voilà, euh, une autre question. Euh, parlons du port du bracelet électronique chez les membres du PASSEF, comme par exemple Elma Ndiaye, euh, Wali Bodjan, entre autres. En tout cas, Elma Ndiaye a fait un, communiqué sur Facebook. Il pense que ces bracelets électroniques, c'est pour mieux contrôler le parti PASSEF. Qu'est-ce que vous pensez de ça? euh, il est temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. Parce que, comme je vous l'ai dit, euh, n'a plus rien à faire sur le champ politique. Et aujourd'hui, euh, APEX un regroupement de, personnes aujourd'hui qui, sont, vocation de faire disparaître le Sénégal, de faire plonger le Sénégal dans le chaos, dans la violence. C'est indéniable. Et ils le disent même dans leur meeting. au vu et au su de tout le monde. Donc l'État sénégal, l'État sénégal doit passer à la vitesse supérieure avec des détentions préventives parce qu'on ne peut pas, nous, euh, l'État du Sénégal ne peut pas se permettre de ne pas protéger les citoyens. L'État est de la, sécurité des biens et des personnes dans ce pays. Et l'État aujourd'hui a le devoir de passer à la vitesse supérieure ces, ces, ces, ces, il faut les mettre hors d'état de nuire. On peut pas aujourd'hui vivre en fait toute une nation. Ces gens-là ne font plus la politique. Ils sont dans la lutte armée, dans L'État doit mettre des, moyens en œuvre pour les neutraliser. C'est tout. C'est aussi simple que on peut pas rester avec un groupe de personnes qui veulent terroriser tout le monde. Voilà, l'État doit mettre les moyens idoines qu'il faut pour les amener à la coercition. Dernière question, euh, cher Ahmed Tidjan Sal, c'est par rapport à la question euh, de la troisième candidature euh, éventuellement du président Macky euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette question d'actualité on nous a dit euh, Abdoulaye n'avait pas droit à une troisième candidature et on a vu qu'en fait, en réalité, il avait droit à une troisième candidature et finalement, il s'est présenté. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de bégayer. Et au vu de la Constitution, au vu de ce constitutionnalistes de renom ont dit, et, de la bouche de certains opposants, comme Barthélémy Diaz, comme, comme Ousmane Sonko, ils ont, reconnu que le président Macky Sall droit de priver un euh, deuxième quinquennat euh, Donc, le problème ne se pose pas juridiquement. Maintenant, il y a qui savent que euh, ce que la parole du président est qu'il ne parle plus de, euh, du point de vue juridique. Les gens on, savent qu'il a droit, à ce mandat-là. Et que donc, à ce moment-là, c'est à lui de voir, c'est à lui de, de prendre sa décision, euh, de, de, à savoir s'il sera candidat ou pas, et que le Conseil constitutionnel, qui est habilité à valider les candidats, euh, à ce moment-là, remplace sa, sa, sa, sa décision. C'est aussi simple que cela. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui s'agitent par, par-ci et là, disant qu'un tel ne peut pas être candidat, un tel ne sera pas candidat. Il faut revenir à, à l'orthodoxie, à l'orthodoxie. Et c'est pour le Sénégal à des institutions crédibles, fortes et crédibles. Il faut que les choses se passent à travers euh, euh, les règles là. C'est pas un, citoyen euh, en tant que tel qui peut décider qui peut être candidat ou pas. Sinon, ce serait plus une république, mais ce serait à la jungle, ce serait le Far Euh, donc il faut savoir raison garder. Il faut que les instructions de la République, on les respecte. Et on ne peut pas être dans la rue à vouloir euh, dicter sa loi. Ça, c'est impossible dans une république. Voilà, cher Ahmed euh, Tidjan Sall, Réumé FM vous remercie pour la disponibilité. Merci. Et je rappelle Après, que vous êtes. Euh, je rappelle que vous êtes ex-collaborateur d'Ousmane Sonko, par ailleurs coordonnateur du mouvement Le Rassemblement des Patriotes du Sénégal. Nous vous disons à tout pour la version Wolof de cet entretien. Euh, merci. Je, euh, voudrais juste rectifier, je n'étais pas collaborateur, euh, parce que dans un parti politique, une euh, nouvelle de Pastef collaborateur. Donc vous faisiez partie du Pastef. on est des frères et selon l'appellation du parti, on est des, euh, militants, D'accord, c'est bien ah, noté, cher Ahmed Tidjan Sall. Cher Ahmed Tidjan Sall.